bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yu guddi tey gi mooy guddi fukkeel ak benn ci koor gi naafile tey gi di ñeenti raka maanaam ñaari sëlmal raka bu nekk fatiha benn yoon la inna anzalnaahu juróom ñaar yoon xul yaayul kaafiruuna ak xul huwallaahu ahadun lu ci ne juróom-ñaari yoon ñeenti rakka rakka bu ne fatiha benn yoon inna anzalnaahu juróom-ñaar xul yaayul juróom-ñaar xul wallahu ahadun juróom-ñaar boo sëlmalee nga wax laa xawla wala quwata illa billahi al aliyi al juróom-ñaar fukki yoon julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa juróom-ñaar fukki yoon wasalaamaaleykum wa rahmatullah